cancer du sein mu nekk loo xamante ni nag ñi muy dal ci Sénégal bëri nañ lool sunu mbokk soxna yi ñi siy ñàkk seen bakkan tamit bëri na ci lool euh, ñu leen di nag wax journée mondiale bi tey mooy xeex lépp loo xam ne aju na ci cancer du sein ak euh, mbirum col de maanaam butitu njurukaay euh, sunu mbokk soxna yi nañuy dem di defi li nga xam ne mooy dépistage xool seen wàllu wér-gi-yaram El Bachir mais loolu tamit état bu Sénégal moo ko war a yombal ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi maanaam di ko def ci koñ yeeg xeet yooyu ku dem ñu defal la dépistage xool sa wàllu wér-gu-yaram loolu am na solo ndax soo su mbir mi suñ ko xoolee na ma ngi ci yow rek dafay yomba faj waa mais nag boo demee nag wax dëgg yàlla nag ba nga xamante ni ëpp nay loxo loolu moom euh, c'est trop tard mais ñun Sénégal dañoo ragala xam sunu xam lu ñu dal am na ñoo xam ne maanaam bañ a xam jàngoro ji leen dal sax moo leen di gënal ñu ne la jàngoro sàngam dal na la mais comme dal na la ba pare kay bi muy doog di am loolu saafara ko loolu yomb na ma ngi mel ni ngay ak garab soo koy doog di jëmbat mais El Bachir di nga ko mën a jubbanti mais soo ko jubbantiwul gis nga ne garab gi yaa ngi koy doog jëmbat dëng na danga ko war a teel a jubbanti mais boo ko jubbantiwul ba mu dem ba màgg mais mënatoo ko jubbanti feebar tamit noonu la mel. feebar noonu la mel bu ñu xamee ne jàngoro ji mag ngi si yow tëralu la sonalu la deful maanaam feeñul si yow loolu pour saafara ko lu yomb la kon jigéen ñi ñoo war a dem defi dépistage xool ba xam amee nañ ko waaw wala amee wuñ ko mais sensibilisation bi si état bu Sénégal def war a def tamit ba léegi gëm naa ne defaguñu ko si ndax ñoom dañoo jàpp ne euh, waa LISCA kese ñoom ñoo war a def seen campagne de communication xeet yu demee noonu état bu Sénégal ni mu jëlee milliards. def ko ci mbirum xeex coronavirus noonu la ko war a defee ci jàngoroy cancer du sein ak yeneen xeetu jàngoro ci lu jëm ci wàllum sensibilisation ndax coronavirus kese rëyut cancer du sein ma ngi nii day rey di dem rek euh, état bi daf see war a def sensibilisation maanaam taxaw ci comme nii mu taxawee ci coronavirus bi xam nga corona bi ñoo ngi def seeni bulletin chaque jour mais jël nañu xaalis bu dul jeex def ko ci campagne sensibilisation panneau publicitaire fu nañu tax fay panneau mais mais ñay dee ci corona ay bakkan lañ dee dee la rek da nga am jàngoroy corona ba dee kii am jàngoroy cancer euh, cancer du sein ba dee te wax dëgg yàlla nag bu ñu xoolee nag coronavirus moom lenn la man maanaam wàlle moom gaaw na koo def mais nag yeneen feebar yi moom ñoo ko gën a mën a gaaw a rey nag ndax moom Sénégal moom ñun ñëpp xam nañ ne coronavirus rey gi ñuy wax moom moom la gaay bu ko gaay woon fii ci Sénégal fii kon kon réew mi moom gis naa ne ay benn benn fii moom yow jaxasoo baa ngi mel ni tulleeg màlle Sénégal yan mesure lañ jël yan mesure lañ respecté Sénégal wax leen ma rek yan mesure lañ respecte ba corona commencé Sénégal ba léegi man de wax dëgg yàlla maa ngi ci terrain bi maa ngi ci mbedd yi maa ngi ci jotaay waaw corona bi si diggu corona bi da ngay romb attaaye ji fii si koñ bi xale yi café Touba gi fii oto yaa ngi fii gars yi dañ fi xoolal gars yi dañ fee ne di wax nii rek wax dëgg yàlla corona nag moom am na rey nay nit mais yeneen feebar yi tamit dañ see war a wane fulla wane ci fayda mais cancer du sein journée mondiale bi ba journée mondiale bi presque ngay dégg ñu wane ci benn taxawaay bi vraiment war nañ cee sensibiliser jigéen ñi mu nekk feebar boo xamante ni buy wér la xale yu ndaw yi man am na benn ñàkk boo xamante ni mën nañ leen ko mën nañ leen ko ñàkk ndax gis nga ñàkk yi ngay dégg ni affaire euh, poliomyélite bi ak yeneen xeetu ñàkk yi xale yi ku ko ñàkku yàlla mën na laa musal ci feebar yu baree baree baree bare ci bi ngay nekk xale moo tax jigéen ñi dañoo war a respecter di dem di ñàkki seen doom yi euh, bu ñu juddoo loolu lu am solo la te mën na leen a aar ci lu ci ci lu baree baree bare baree bare Euh, cancer du sein la ñuy waxtaanee mbokk yi El tey xam naa ne férié bi la sama gaa yi xam naa ne dañuy dañuy férié mais rajo nag moom xam nga amul férié moom ma ngi noonu mais cancer du sein daal Euh, il faut ñu indiwaat ko fi xam naa ne beneen bi si waxtaane ko bu baax a baax euh, ndax waruñoo topp riirum riirum nguur gi rek ndax nguur gi moom lu xew ba xew lañ ci wax wax si ñaari fan parewaat si te ñi muy rey dafa bëri état bi non seulement war naa farlu ci communication sensibilisation wax jàngoro ji naxtaan jigéen ñi wax ñoom dugal ci ci communication bi ñi si war a dugg ñëpp kilifa diine wax si joxe ci ndigal yow kilifa diine ndigal yi ñuy joxe ndigal la ndigal la mais dem leen defi dépistage si seen wàllu wér-gu-yaram xool ba xam am ngeen cancer du sein am ngeen ko wala amu leen ko mais mais message yooyu dañ ko waroon di boole ci ay cérémonie officielle u gàmmu geeg màggal yi maanaam di leen wax àdduna bépp di la déglu sensibilisation jigéen ñi ak ak Sénégal maanaam si waxtaan yooyu nga xamante ni tey to àdduna bi yëpp leen di bàyyi xel ñu def ay déclaration yoo xam ne uniquement pour sensibiliser jigéen ñi la dem leen ngeen defi dépistage nangam ak nangam bu ko defee vraiment dina nekk loo xam ne dina jàll imaam yi si jàkk yi ak si jumaa yi ñoom tim di ko def xutba bu ko defee góor ñi moom tim farlu ci seen njaboot yi ñu dem defi dépistage ndax góor ñi ñoo leen ci war a jàppale ñoo leen ci war a gunge mais su dee gunge woon leen si tamit ëllëg lu leen man di dal tamit ordonnance way leen di xaw a sonal wala la say xew xew ca kon cancer du sein mbir la moo xam ne ñi mee dal ci Sénégal bëri na ñi si ñàkk seen bakkan bëri na waaye na leen leer na képp ku teel a jóg si sa wàllum wér gi yaram bu ñu gisee ne as toq am na si rek mën nañ koo dindi ba mu set wecc waaye nag soo bàyyee nag ba mu ëppi loxo yow yaa bàyyi ba mu ëppi loxo ndax Sénégal nag bëri na ñoo xam ne li leen dal ñoo ko teg seen bopp te ak sàggante moo tax point barre sàggante dara dal la nga naan waaw lii nangam ak nangam waaw lii hein loolu moo ñu teg loraange bu baree bari wér yaram kenn du ko kafe wér yaram kenn du ko kafe mais gëm naa ne senegal ba léegi fu làkk fayda bi nga xam ne sunu autorité war nañ koo wane ci wàllu wér yaram ba léegi des na sénégalais yi tamit ñu bari si ñoom farluwuñu ci xool seen bilan de santé te loolu mbir la moo xam ne mu am solo la waaye faj gee cher tamit ak këll-këllee gi ñuy këll-këllee doomu askan bi ci bërëbu fajukaay yi wala yenn ci bërëbu fajukaay yi ndax El am na hôpitaux yoo xam ne boo fa demee tey dootoo fa bëgg a demati di nga fa fekk ñoo xam ne dinañu ñàkk kersa benn xeetu ñàkk kersa boo xamante ni sax danga naan man nekkuma Sénégal pays de la teranga bi ñuy wax nekkuma si yow ñi waroon a gën a am yërmande gën a nooy gën a dal mooy ñi nekk ci bërëbu fajukaay yi xam ne hôpital moom kenn bëgg koo romb ba fi dugg kenn bëggu ta romb hôpital hôpital ku mi sëg ku mi armel ku dugg hôpital rek yow duggoo fa sa sago danga feebar wala sa mbokk feebar te hôpital ku fa dugg tiit yow nit ki tiit jaaxle yow médecin bi yow sage-femme bi nga war koo dalal muy ñëw ngay lido di wax waxu natt di wax waxu xew buñ la waxee ngay jànni gëddee ñàkk teggin Ah, loolu dañ koy nemmee ko ci bërëbu fajukaay yu bëree bëri am na nag ay exception mais loolu dama xamul ñu nekk si bërëbu fajukaay fan lañ ko teg fan lañ teg nit ñëw war a faju non seulement waxuma laaj xaalis bi mais ñàkk teggin gi nga xamante ni rek moo ci am ak jànne gi ñu lay jànne rek ak ngay wax ak ñoom laax nga mel ni euh, robinet wu yàqu ngay waxal mel ni robinet loolu vraiment war nañ see euh, war nañ see jugaat war nañ see jugaat bu baax a baax a baax a baax a baax te Sénégal fajo gi fajo gi dafa cher ba jéggi dayo yow Bachir fajo gi gis nga temps wu màggal gi après màggal damaa def hôpital cinq jours nekk hôpital sa am fa malade mais si ngay dog di comprendre dëgg-dëgg li xew ci biir hôpitaux yi bindal malaat ordinance ki mu àndal sànniwaat la ordonnance na la mënuma koo jënd ndax aw ma lu ma ko jënde malade yi ñi ànd ak ñoom di xuloog médecin yi ci ordonnance bu bari wu ñuy bind te doo gisuk tan yow miy fajo jànni gi mel ni tulleeg màlle ngay gis ku jël ab xaleem indi xaleem suba 9h ba 15h kenn du laal jël loxoom teg si jëbi sax xool ba xam yaram wi tàng na wala tàngut loolu nga jàpp ne loolu fan la tege xam nga yooyu mooy yoo xam ne Sénégal Euh, gis naa ne war nañ si taxawaat bu baax a baax war nañ ko war nañ ko xoolaat te sénégalais tamit xamewuñu leen woon ak ñàkk yërmande mais léeg-léeg gis genn ñàkk xeetu ñàkk yërmande goo xamante ni moo tax Sénégal jàmm fi yàlla yomb na trop Bachir gis nga hôpitaux yi ku fa demoon taxaw ci pharmacie yi yàlla dénk la teraangay àdduna nga fay toog ndànk-ndànk di làqatu di jënd ay ordonnance loolu moom wax dëgg yàlla jaamu yàlla la goo xam ne euh, ku ko def am na nag ñu koy def ndax Sénégal nag wax dëgg yàlla dafa bari nit ñu baax dafa bari nit ñu am yërmande waaye ñi ne si bërëbu fajukaay daal di faj yenn yi ñoom ñenn ñi si ñoom war nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax ndax ñi leen di ŋàññi bari nañ nit feebar ñëw nga naan ko toogal feek toppal rang geek bul fi waccoog sa waccu meek sa nangam jeeg xam naa ne daal Sénégal gii euh, ma ngi noonu kon El Bachir euh, jàngoroy cancer du sein tey la journée mondiale bi médecins yi nag nee nañu jigéen ñi dem leen ngeen defi dépistage ngeen xool seen seen wàllug wér-gi-yaram ndax loolu nekk na loo xamante ni euh, vraiment mbir mu am solo la moo xam ne war nañ see bàyyi xel bu baax a baax a baax kon mbokk yi loolu la ñu waxoon ne dinañu ko waxtaane El Bachir ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen di jox dig daje euh, suba incha allah jërë ngeen jëf jàmm jàmm